ah sant yàlla rek waaw feebar bu dépendrewul si ñun la dépendrewul si élèves yi waaw reprise bi nag élèves yi ñoom ñoo si jàng bi sax ñoom ñoo si gën a méttile ko kon bu ñu mënee reprendre te du am conséquence ñoo ngi fi daal pour loolu élèves yi rek ak ñu tax a jóg suñuy liggéey la. non comme emploi du temps yi xam nga jotoon nañ ko def avant reprise bi di annuler ce qui veut dire que tey ñu am cours rek a ñëw waaw mais sinon tous les professeurs sont concernés ah, ñu ngi fi de tey ñu am cours rek a ñëw waaw. donc euh, nous avons les élèves en quatre euh, quatre groupes quatre classes euh, donc euh, maître yi nga xam ne ñooy titulaire classe ñoom ñëw nañ. peut-être ngi xaar yeneen collègues yi ñoo xam ne ñoom peut-être ñoom ñooy gérer organisation élèves yi pendant la récréation pour ñu mën a séparer leen ñu ba nekk en groupe ñoo ñoo ñëwagul quoi mais pour les enseignants qui euh, gèrent les classes de Seen 2 son la donc euh, rek ñu ñaan rek euh, yàlla defal ñu ci ndam rek ba élèves yi mën a jàng bu baax mën a réussir seen examen quoi. depuis sept heures moins maa ngi si sillonné école yi en tant que président comité local Médina Croix-Rouge Thierno Gaye laa tudd donc école yi ma dem yëpp vraiment dispositif yi yëpp fekk na ñun nekk en place bon ñun nag. gisuguma ci benn boo xamante ni amagum na faay yëpp te ok bi ma defee revue bi ci école yëpp wax dëgg yàlla masque yi alcool gel yi lave-mains yi yëpp ñu ngi sur place ak masque yi élève bu nekk dañ lay jox au moins minimum trois masques ou deux nga garde ko pour le moment. suñu respecté mesures yi xëy na ñu xeex corona nañ raxasu ak saabu ba set di takk ay masque te di jël distance ak élèves yi te ba bañ a moytu dajaloo bi